asalaamaaleykum sama gars ñi ñu ngi leen di ziare bu baax a baax fii ci réew mi sport altine le 28 octobre 2024 ñëw ci xibaar yi bu fekkee ne abonné go ñoo ngi sàkku nga abonné partagé lii di vidéo bi lu am am solo la ci seen bi. xibaar yu tey yi dañ koy uh, daal di ñëw ci ballon d'or bi nga xam ne dinañ ko joxe ci kanam uh, tuuti. nga xamante si ni uh, lu ci bëri bëri am na pour man comme ay retournement de situation mais dinañ ñëw jéem a donc indi ay leeral par rapport ak ñaari joueurs yi nga xam ne vraiment ñoom ñooy xëccoo ballon d'or bi di kii di Rodri bu côté Manchester City ak kii di Vinicius Junior bu côté équipe bi di Real Madrid te ñu mujjee dégg ci ay information que ne ki nga xam ne moom mooy Rodri bu Manchester City moom mooy gagné lii di ballon d'or 68e édition bi donc ñu fa yéene ñëw waxee donc ci quelques détails yoo xamante si ni am na ci ñoom ñaar parce que ak lu mën di wax Euh, surprise la donc ñu gis ki nga xam ne moom la ñuy tuddee Vinicius Senior ñàkk a li nga xamante si nii moom mooy Ballon d'Or bi bokk na aussi li nga xam ne mooy gën a jaaxal nit ñi parce que propagane bi nga xamante si nii moom la gaa ñi mettroon en place propagande bi jàlloon na kenn ne Vinicius Senior day remporté. benn ballon d'or boo xamante si nii kenn naru kaa contesté maanaam daal lu noo xam ne gars ñi dañ ciy xel ba xam naan est-ce que euh, ballon d'or bi Vinicius Junior daal di koy mérito wala doog mérito wu ko ñu xëy xëy ñu ne ñu Rodrigo moo remporté ballon d'or Rodri remporté ballon d'or loolu yaakaar naa ne tamit euh, nekkul loo xam ne scandale la ci par rapport ak euh, Rodri ku ko xam ci niñ ko xamee ci côté prestation ci côté importance bi nga xamante si ni am na ko ci côté Manchester City ci côté équipe nationale joueur la boo xamante si ni donc depuis que mu commencé carrière ba tey de haut niveau nag rek lan ko lañ ko xamee et que saison bi ñu weesu aussi réalisé na saison bu baax individuellement premièrement parce que foofu la ñuy njëkk a xoolee Ballon d'Or mais aussi tamit collectivement lépp jàmm palmarès bi aussi lépp jàmm li nga xam ne aussi moom mooy côté fair play tamit lépp jàmm par rapport ak nga xam ne moom la doon mais ci Vinicius Junior aussi lépp loo xamante si ni wax nañ ko ci kii di euh, Rodri pour que ñu ne Rob Rodri mérito na pour gagner Ballon d'Or daanaka mën nañoo fekk lu ko raw ki nga xam ne moom mooy Vinicius Junior dinañ dikk ci kanam nag li nga xam ne am nañ yaakaar ne moo tax ba Vinicius Junior daal di euh, perte li nga xam ne moom mooy 68e euh, édition Ballon d'Or 2024 mais Vinicius aussi réalisé na li nga xam ne moom mooy sason bu rëy rëy avec le Real Madrid donte nag. équipe nationale euh, Brésil Vinicius mi ñuy xam euh, Real du bokk ak Vinicius mi nga xamante si ni moom la ñuy gis. dañuy njëkkee donc ci côté Rodri bi nga xam ne wax nañu ne mooy remporté ballon d'or bi ci côté impact ci côté li nga xamante si moom mooy caractère décisif bi nga xam ne bokk na ci yenn ci sàtt yi ñuy sukkandiku pour joxe ballon d'or Rodri foofu dafay pressant très pressant même foofu jur ñuy sori nañ xool Manchester City gi nga xam ne Rodri fi nekk fi actuellement ndaxte ñëpp xam nañ ne Rodri amul benn problème euh, City amul problème défensif actuellement mais problème équilibre la am et que bi muy joué pour équilibrer équipe da cee bokk kon bu ñuy xool caractère décisif et importance dans son équipe donc kii di Rodri da ciy saf sàpp li koy firndeel mooy xoolal si City actuellement buy gagné ni muy gagné mais day gagné aussi difficilement kon da ngay xam ne kon euh, Rodri ñu. indi ko foofu du doon loo xam ne scandale lay doon ci par rapport ak caractère décisif euh, avec City bu mu euh, si nekk mais aussi Vinicius Junior Vinicius Junior aussi ñu xool ci caractère décisif moom it liñ ko doyee carrément moom loolu moom mi ngi koy def comme ni nga xam ne si noonu la waree muy lan euh, provocateur provocateur bu ñuy xool actuellement Vinicius Junior man nis naa wax ne daanaka moom mooy le meilleur dribble du au monde donc képp koo xam ne da dribble les joueurs ab joueur provocateur Vinicius Junior moo ci première en plus dafa am impact ci équipe boobu nga xam ne moom mooy Real Madrid firnde bi donc mooy dernier match bi contre Dortmund donc da ngay ne ñoom ñaar ñëpp yu mat sëkk. léegi nag fan la Rodri peut-être daal di dóore benn coup euh, euro euro bi ñu weesu euh, Rodri dafa présent non seulement dafa bokk ci leader yi mais bu leen fàttali ne Rodri moom moo gagné le trophée meilleur joueur euh, li nga xam ne moom mooy euh, championnat euh, lii di euro meilleur joueur euro donc Rodri moom moo ko gagné en plus am ci impact nekk ci li nga xamante si ni mooy biteex bokk ci li nga xamante si ni moom mooy équipe type bi ci lu jëm ci wàllu euro xam nga loolu tamit dafay doon loo xamante si ni gaañ ñi parfois ci li ñuy sukkandiku euh, nga xamante si ni moom mooy seen tànneef kon Rodri bu fekkee ne dañuy xool ndaxte bu leen fàttali ne euro mi ngi am mi ngi am la 4 14 juillet moo doonoon final bi donc boobu fekk na Ballon d'Or euh, mi ngi ci ba tey beneen bi euh, fi nga xam ne fa tête Vinicius fa la manqué ay points mooy lu jëm ci wàllu Copa America Vinicius Junior dafa donc décevant maanaam daal Vinicius Junior dañ ko doon xaar mu ñëw toj Copa bi comme ni mu jeexalee Ligue des Champions bi ba mu ñëwee deful noonu te bu leen fàtt ne Uruguay ba mu euh, euh, éliminé Brésil euh, Vinicius nekk fa woon te li ko fete teewoon a nekk affaire indiscipline la maanaam carton rouge ñaari carton lañ ko joxoon. kon loolu encore nekkul lu baax dèjà dèjà yaa ngi bu baaxoo ci compétition bi beneen bi mooy yaa ngi euh, manqué te la la manqué looy ay affaire carton jaune la en tant que attaquant ci sept matchs yi nga xamante ne moom la gaañ di jouer beneen bi aussi est-ce que presse bi ci boppam euh, teelu ñoo def seen propagande ba Daniel Gagny ndaxte démb rek maa ngi koy rappelé ci benn vidéo di wax ne Ballon d'Or lu ci bëri bëri dafa changé depuis le ballon d'or de Karim Benzema 2022 man mi sax daanu naa ci pièce bi ci côté propagande bi mais man damay joxe li nga xam ne si moom laa gis ci par rapport ak saison bi donc Vinicius Junior ku ne ma woon du gagné Ballon d'Or bi tey jii nii du doon loo xam xamante si nii lu may gëm la ba tey jii nii sax après ba nit ñëpp jotoon na information yi surprise donc bu rëy rëy la doon lan moo tax ma ne nag presse bi peut-être que dañu ñoo nax ci côté propagande ba indi yenn mbir. ñu daanu ci seen i bi ci njëkk mooy xam leen ni Ballon door bu njëkk daanaka cinq jours ou bien un mois avant que ñu joxe Ballon door dañ daan dévoiler ki ko war a jox maanaam ki ñu ko war a jox dañ ko koy wax avant que un mois yi di jot ci côté li nga xam ne mooy Ballon door bi mais Ballon d'Or léegi ji ci jour bi lañ mujj xam kan moo koy gagné maanaam léegi li ñuy tuddee vote secret la vote secret nag da nga koy def ba pare après gaañi euh, denc mbir mi nit ba bis bi donc ñu koy ñu koy dog di génn xëy na nag foofu la ñu bëree bëri ñëw ba affaire bi bett leen ci li nga xamante si ni moom mooy benn côté leneen li nga xamante si ni aussi amoon na euh, bu leen fàttali ne am na ay coéquipier yu kii di euh, Rod kii Rodri yoo xam ne jël nañ ballon d'or bi jox ko Vini comme Ederson di gardien de but bu Manchester City laaj nañ ko fii kan nga faral. kan nga gën am yaakaar ne moom mooy remporter Ballon d'Or entre ki nga si nii moom mooy Vinicius Junior ay Rodri mu ne Rodri respecté naa ko tamaam moom bokk équipe mais nag Vinicius li mu def ci saison bi yëpp gëm naa ne mooy gagné Ballon loolu ñoom Neymar wax nañ ko ñoom Ronaldinho wax nañ ko donc y beaucoup de joueurs yoo xam ne ay légendes lañ yoo xam ne prononcé nañ wax ne donc Vinicius Junior moom mooy remporter Ballon d'Or 68e édition bi pour léegi nag li ngeen war a xam ne mooy Rodri dafa am lu bëree bëri loo xam ne moo ko yokk kot bokk na ci 64 matchs yi mu joué bokk na ci 14 euh, passes yi mu def en tant que milieu défensif 12 bii yi nga xam dugal na ko en tant que milieu défensif bu leen fàttali ne Rodri gagné na euh, coupe du monde des clubs daal di gagné woon sax li nga xam ne moom mooy euh, lii di super coupe d'Europe gagné championnat bu Angleterre bokk ci mais équipe type championnat bu Angleterre. équipe type euro meilleur joueur euro donc yooyu ci boppam dafa doon ay points des points importants yoo xam ne moom la Rodrigo marqué mënees na jàpp ne tout à la dernière minute parce que yooyu yëpp ça compte ci li nga xam ne moom mooy mbir mi. léegi nag ginnaaw Rodri wax nañu ne mooy gagné li nga xam ne moom la ñuy tuddee ballon d'or bi ñu fa fas yéenee ñëw ci yenn ci yi nga xamante si ne yaakaar nañu ne ay koñ la yoo xam ne mën naa perteloo Vinicius Junior ay points yu bëri bëri parce que tamit bu ñu fàtte ne ballon d'or affaire de vote la. du du question ne France Football Club day toog nii ne way meilleur joueur du monde mooy Vinicius Junior ou Rodri am déedéet ay nit la yoo xam ne day ñëw vote ñu voté ñu xool ku ëppale yaay gagné raw gàdd la donc moom moo amoon nekkul ne donc kenn mooy toog tànn kii di meilleur joueur du monde bi mais plutôt benn groupe presse groupe sélectionneur groupe capitaine. pour man bi ci njëkk nga xam ne mën naa wàññil Vinicius Junior ay Ballon d'Or te yàgg naa ko wax ku ma yàgg siifur ku ne Vinicius Junior làmmiñ na mën na kaa xañ Ballon d'Or waaye gis nga euh, da ngay respecté ñi nga xamante si ni ñoom ngay liggéeyandool muy joueurs yi di supporters yi rawatina ki nga xam ne moom la ñuy tuddee le maître du terrain arbitre bi Vinicius Junior ñëpp xam nañu ne joxul cër arbitre déedéet donte nag léegi mi ngi ciy progressé wu. Ancelotti def na ci liggéey bu ama am njëriñ mais yii nii yenn la ci point yoo xamante si ni gaañu soppuwuñ ko foofu mën nañ kaa jógee ci li nga xam ne moom mooy 4 points. principaux yi nga xam ne mooy tax ñu jox la ballon d'or mooy nga doon un joueur indiscipliné et que diggante ki nga xam ne moom mooy euh, Vinicius Junior ak arbitre yi foofu gisuñ fa discipline boo xam ne si nii bu baax la. ba neen aspect boo xam ne si nii pour man Vinicius Junior man na faa perte point mooy classement FIFA xam nga loolu démb expliqué nañ leen ko ci vidéo ballon door bi mooy que FIFA à partir de 4 septembre le classement bi jee génn les cent premiers pays. ñooñu ñoo am sañ-sañ pour voter ci Ballon d'Or muy seen i journaliste seen capitaine ak seen i sélectionneur dem leen ngeen xool classement FIFA les 100 première ci quatre septembre boo demee da ngay gis ne plupart ci pays ay pays européens lañ maanaam réew yi jiitu woon ay réewu Europe la te bu leen fàtte ne Vinicius du doomu Europe doomu Amérique la donte nag bu fekkee ne li ngay tànn da ngay tànn rek te doon ko objectif bu fekkee ne Vini moo jiit da ngaa war a defal bu fekkee ne Rodri moo jiit da ngaa war a defal xam nga ne ak far du mën a ñàkk léegi bu fekkee ne téeméeri réew yi jiitu léegi ñu xool soixante yëpp doon ay réewu Europe après li ci des 40 yi ci des Afrique séddoo ko Amérique ak Asie léegi nag 60 yéene parfois européens yi daal di favoriser Rodri parce que Rodri mooy doomu Europe Vinicius di doomu Amérique xam nga loolu mënut a ñàkk aussi kon loolu tamit mën naa doon benn aspect boo xam ne bu ñàkk la xay na Vinicius 208 ya mënoon na ko arrangé mais là les 100 premières bu fekkee ne 100 premières Europe la ñu nekk euh, et que moom du doomu Europe te doomu Europe lay xëccool am na nu muy demee waa Europe daal di favoriser seen doom. beneen bi mooy li ñu tuddee vote par man damay gëm ne aussi vote par tasse mën naa yàqal Vinicius Junior ay koñ yoo xam ne si ni koñ yu bëree bari la ñëpp xam nañu ne ngam daaw dafa réaliser une bonne saison donc bokkoon na si ñi nga xamante si ni dañuy xëccoo aussi lii di ballon d'or bi am na ñoo xamante si ni ba tey Bellingham moom lañ gën a gis que Vinicius Junior te doon ay supporteru Real war bëgg football donc ñooñu bu demee bay voté ñoom Mbappé la euh, kii di Bellingham la ñuy jël jox ko ko donc ñi joxoon Bellingham ñëpp xëy na bu fekkoon ne Bellingham nekkul woon Real ñoom Vinicius la ñuy jox tey donc ñooñu tamit seen vote yooyu nga xam ne dañ kaa jël jox ko ki nga xamante si nii moom mooy Bellingham au lieu que de Vini donc loolu aussi mën naa am impact te bu leen fàtte ne am na au moins quatre joueurs Real Madrid yoo xam ne. dañoo nekk ci liste tamante Ballon d'Or bi te doon joueur yu baax yu am solo Dani Carvajal Mbappé Bellingham Rodri Vinicius Junior am na ñoo xam ne Mbappé la ñuy jox ñoo xam ne Bellingham am na ñoo xam ne Rodrigo am na ñoo xam ne Vinicius am na ñoo xam ne Dani Carvajal léegi imagine ñu wootee loon Carvajal Bellingham euh, Rodrigo ou ñoo ñu noonu xëy na bu fekkoon ne ñoo ñu nekkuñ fi Mbappé Vinicius lañ koy jox donc boobaa Vinicius dina bëri dina bëri ay koñ kon vote partage bi tamit mën naa doon victime ci côté Vinicius Junior maanaam daal am na ñoo xamante si nii ay supporters Real lañ préféré votel ki nga xamante si ni mooy kii beneen bi mooy le discours de de de de de de de Vini bu leen fàtt ne coupe du monde Euh, deux mille trente deux xuma deux mille trente donc Espagne da kaa war a organiser bu leen fàttali ne Vinicius moo taxaw publiquement wax ne bu fekkee ne fii ak deux mille trente wàllu racisme euh, liggéeyuñ ci nañu retirer candidature bu Espagne yéen a ngi dégg kon moom ci boppam moom Vinicius Junior réew moom ñuy football ci biir Espagne nee na leen boo leen jugul ci lii damay wax ñu jéem a retirer seen candidature te xam ngeen ne Portugal mi ngi ci biir Maroc mi ngi ci biir Espagne mi ngi ci biir Uruguay mi ngi ci biir. Argentine mi ngi ci biir ñooñu ñëpp ñoo war a boole seen doole pour organiser coupe du monde bi nga xam ne Espagne ma nga ci biir ce qui veut dire que boo moytuwul waa Argentine waa Maroc waa Portugal bu ñu gisee déclaration bi fini bi xam nañu ne mën naa indil jafe-jafe seen candidature ñu ne waay boy bi dañuy fonto donc man mi war a voté pour jox ko du ko joxati parce que Espagne bi muy xeex saa bu ñu retiré li nga xam ne moom mooy candidature ci coupe du monde boobaa ñun dañuy futti dañuy am problème. donc xaaral ma dem jël affaire bi jox ko ki nga xamante ni moom mooy Rodri moo tax ma ne làmmeenu kii di Vinicius Junior mën naa xañ Ballon d'Or Vinicius kon Ballon d'Or parfois boo ciy gii dafa bëri ay aspects yoo xam ne moom ngay bàyyi xel pas football bi rek mais y a des discours y a des disciplines donc fa côté fair play donc loolu lépp ci la bokk Maroc mii mën na laa mere en travers de discours bi donc sélectionneur Maroc bañ laa voteel capitaine bi noonu Portugal tamit def noonu Argentine def noonu bu yàggee ñëpp def noonu après après donc da ngay da ngay da ngay dugg ci da ngay dugg ci problème et pourtant Rodri yii ñu jot a wax nii daanaka dégguñ ko ci benn yoon donc mu ne mu ne mu ne da ci yéey wala mu yàbbi ci donc loolu c'est une défaite pour ki nga xamante si nii moom mooy euh, kii di Vinicius Junior kon aspect boobu na ko xalaat bu baax a baax très jeune donc vingt-deux ans vingt-trois ans bientôt vingt-quatre ans donc mën naa mën naa mën naa gagné ay ballon d'or yi ballon d'or si kaw mu corrigé yi nga xam ne jot nañ kaa war parce que yii ndax dese naa ànd ak ballon door Real Madrid nag gaa ñi ñoom jël nañ dogal nee nañ ñoom duñ dem duñ dem duñ Paris Bellingham du dem Ancelotti du dem Perez du dem parce que ñoom dañoo am lu leen métti parce que ñoom yaakaaroon nañu ne ki nga xam ne moom mooy Vinicius Junior moom mooy remporter li nga xamante ne moom mooy Ballon d'Or pour remplacer ki nga xam ne moom mooy Lionel Messi mais finalement que li nga xam ne moom mooy France Football Club euh, ak ñi nga xam ne ñoom ñoo ca nekk ndax dañuy rappeler loolu encore du question de dañuy jël Ballon d'Or bi jox ko kenn rapidement. mais vote la léegi nag vote yi nag moom euh, ku ci nekk ak la nga xamante si ni euh, moom nga gis. bu fekkee ne nag gaañ yi xam leen ne Rodrigo Rodri remporté na ballon d'or bi moom mooy deuxième espagnol bu remporté ballon d'or bi euh, depuis 1959 benn doomu Espagne moo ma a gagné ballon d'or Iniesta gañewul ballon d'or Xavi gañewu ko Xabi Alonso gañewu ko Torres gañewu ko rawul gañewu ko ki nga xamante si nii moom mooy Di Stéfano Alfred donc do di Di Stefano donc nekk quatrième meilleur buteur de l'histoire di Real Madrid après Cristiano Ronaldo après ki nga xamante si ni moom la ñuy tuddee kii di euh, Benzema après ki nga xamante si ni moom mooy Raoul donc ki nga xamante si ni moom la tuddee Alfredo Di Stefano moom moo ñëw taxawee ci quatrième place bi pour lii di trophée meilleur euh, lii di buteur de l'histoire de tous les temps du Real Madrid kon Rodri tey jii nii dina def loo xamante si nii lu gëj am la parce que cinquante neuf yàgg na donc ay soixante quatre soixante cinq ans donc yoo xamante si nii euh, gisuñu kooko gagné te diggante bi ay légende espagnole donc aw nañ fi pour remporter li nga xamante si nii moom mooy Ballon d'Or bi léegi nag man euh, li may wax nii c'est personnel donc du xibaar. du donc lii mais sama avis bi nga xamante ni am naa ko vraiment pour ballon d'or bi ballon d'or bi man dama koy jël jox ko Vinicius Junior léegi nag ñiy voté nag ñoom dañuy sukkandiku ci ay sart mais man dama préféré man bañ a sukkandiku ci quatrième règle muy règle fair play mais su préfère donc sukkandiku surtout ci euh, qualité individuelle caractère décisif et palmarès caractère décisif Vinicius Junior décisif na caractère individuel maa nga ca palmarès waxaale tuñ ko parce que remporté na la Ligue des champions et tout donc pour man mérité na pour gagner léegi nag euh, c'est surtout que point yi nga xam ne wàññi naa ko mooy Copa America bu bon bi nga xam ne moom la def en plus raté match quart de finale tout simplement parce que dafa am li nga xam ne moom mooy ay carton jaune yoo xam ne si tegaloo la ci diggante bu gàtt donc loolu du yoon beneen bi mooy Rodri Rodri du meilleur joueur Manchester City Rodri du meilleur joueur Espagne. maanaam Espagne ci boppam meilleur joueur de l'année c'est Lamine Yamal donc meilleur joueur City nekku ko yaa a beaucoup de choses yoo xam maanaam ci gàttal dafa nekkul meilleur joueur du monde respecté naa ko il fait partie l'un des meilleurs milieux de terrain du monde moom ki nga xam ne si ne moom mooy Rodri mais le meilleur joueur du monde nekku ko moom ki nga xam ne mooy Rodri Ballon d'Or la nag boo xamante si nii bu jaxasoo la bu bëri ay tuut ay dugg ay yuy jaace mais vraiment bu naqaree joxe la mais nag pour man Vinicius Junior mérité woon na remporter li nga xamante si ni moom mooy lii di Ballon d'Or pour li nga xam ne mooy 68e édition bi ci li mu def lépp li mu def lépp daaw moo gagné Liga bi donc moo gagné Ligue des champions bi triplé contre FC Barcelone finale doublé face à face contre ki nga xam ne mooy Pedri Rodri daal di koy gagné éliminé ki nga xam ne moom mooy Rodri dugal but finale Ligue des champions. d' accord flop na Copa America d' accord xaw naa manqué indiscipliné mais loolu taxul ngeen da nga koy enlever ballon d'or donc pour man c' est un peu injuste ci par rapport ak li nga xam ne moom mooy les les journalistes les capitaines et les sélectionneurs yi nga xam ne ñoom ñoo voté gaañ yi seen xalaat ñu ngi koy xaarandi suuf fii la vidéo bi yem ci kanam incha allah.